dama Aliou Cissé dama yaakaar dafa am ñuy combinal pour yàq talent joueur sénégalais yi quoi salaam gars yi peace Abdallah nuyu ñëpp si àll boo leen seetloo lii di liste Aliou Cissé bi man waxuma ci génnuma ci defuma ci dara parce que j'attendais pas de surprise amul woon leen lu ma doon xaar voilà parce que li ma gis nii dara bettuma ci. dëgg la moom mooy sélectionneur bi à la base moom moo fi nekk moom moo xam tey jii la ban stratégie la ak ban philosophie de jeu a ne tey jii la yan joueurs ñooy répondre ci critères yooyu mu daal leen même liste bi kontaanuma ci parce que dama gëm ni dañu waron préparer après Sadio Mané après Gana après Cheikh Kouyaté ainsi de suite même après Kalidou Koulibaly parce que yàggatul dara voilà lolou dañ ko wara préparer bu baax baax baax baax et malheureusement surtout après Sadio man sentiruma ni ñu ngoy préparer yéen da ngeen may wax seen avis ci liste bi nga xamni ne moom la Aliou Cissé publié bu ko défé ma jall ci ñeneen Carlo Ancelotti wax nañ ci conférence de presse né daw mom mo daan tan kan moy door penalty waye waaye ren jii nii daf ko baye ak joueur yi loolu wax ci conférence de presse dañuy seetlu ni kon li Mbappé ñëw tamit am na influence ci ak doole doole ndax da ngay gis ni tey jii boo jëloon décision jox Vinicius wala mu jox ki frustration mën na créé wu ci équipe bi raison pour laquelle du bëgg a jox kenn ku ci nekk naan la tey jii yow yaay dóor penalty yi keneen ki di ñàkk kontaan loolu sama gis-gis la ci li nga xam ne moom la def nii nii. Carlo daal ci yokk ni Vinicius ak Mbappé daa ñu gën a déggoo ñun daaw mosu ñoo am ay jafe-jafe te ren jii nii yaakaar naa ne duñ ko am ci jamono bi nga xam ni joueurs yi gën a baax ci àdduna bi lañ yor. Carlo Ancelotti itam tagg na Mbappé nee na carrément match yu baax lay def donte dugalul nag ay mouvement am ak déplacement yi muy def ci terrain yépp amul benn bu ci bon mu dolli ci ne équipe am bii motivé wu nañ pare nañ pour jouer ay match yu baax comme nañ daan ko defee. jour bii di Varane nekkoon Real ay jamono te mu dem Como ren jii nii bokkul ci liste bi nga xam ne moom la moo inscrire ci Serie A bi loolu nag xaw a jaaxal ñu bari ak lu ko waral. ki nga xam ne daa rëcc ci waxtu yu mujj ci mercato bi di Raheem Sterling na ni. waaj leen ngir gis Sterling boo leen masta gis ci saison bi kaay man ni ma xamee Sterling mu def saison bu rëy non betteel lay doon ci man franchement waaw mais quand même dina apporter profondeur ci banc kii wu Arsenal bi parce que quoi qu'on puisse dire Sterling jour la boo xam ne il est virevoltant te day jël espace bu bari voilà moo tax nag peut-être yaakaar foofu ngay amee mais quant à efficacité moom bu ci kenn xaar dara. mais gars yi ak Jadon Sancho bi nga xam ne ñëw na João Félix aussi ñëw en ku reprendre. est-ce que gisoo leen ni kii di Nicolas Jackson ay chance am mu football ci attaque gu Chelsea bii nii mu ngi gën di wàññeeku. xam leen fële sa Napoli kii di Romelu Lukaku ñëw na ba jël numéro kii di Victor Osimhen numéro bi ba tax na ñu jàpp ni Osimhen moom daanaka digganteem ak Napoli moom jeex na tàkk bu fa jógewul ci mercato bi nga xam ne moom moo nekk di daw jàpp leen ni Osimhen ay chance am mu footballaat ci Napoli day jafe lool. Bakayoko yegsi na noonu la ko waa PAOK ngir xamal ñu na ca Lorient ngir signé ci club bi di PAOK Salonique kii di Pep Guardiola ci ben conférence de presse bo xamni as lañu jëlé vidéo bi wax na ni carrément moom daanaka tejj na mercato bu fekkee ni le 2 septembre la wara jeex mom, bossam mom yamalé nako fi ndax amna effectif bu doy gaay photo bi moy daw ci réseaux sociaux yi fani di wax ni Arteta dafa yàgg a dàq ki nga xamni mom moy mooy Raheem Sterling mais jàpp leen ni fi ni mom amna ko japp nako japp bu wër sax Arsenal dalana ki di Brighton tay, ñu tébo ci un bi ku ci nekk duggal ko waaye jàppale leen ni image bii ngeen di seen xam leen Declan Rice lañu ci rouge waaye Arsenal nag mu ngi soog a encaissé bii ci Premier League bi ndax Brighton mooy ki ko njëkk a dugal ci championnat bi ginnaaw ba nga xamee ni tàmbale nañ ko ak léegi gars yi couleurs wala catalan yi li ngeen gis ni mooy effectif bu Barça wu ren bi amoon na benn vidéo moo doon wax ni Barça li mu koy tiital ren mooy profondeur u banc peut-être première équipe bi mu ngi def saison bu am solo mais vrai bari amoon nañ ci ay doute mais li tàmbalee léegi nekk na 3 sur yoo xam ni assuré nañ waaye nag ku nekk xam na ni saison La Liga c' est plus de trente journées yoo xam ne war nga ko jongante boole see coupe yi nga war a joué ak Ligue des bi nga xam ne ren ji format bi dafa tax match yi gën a bari ku nekk xam na ni nag li may faral di wax au niveau profondeur banc moo koy joué avec attaque Barça bii nii boo ko xoolee da nga gis Lewandowski Ansu Fati nekk fii daa blessé Rafinha Ferran Torres moom xam naa ni waa Barça bu ma ko tuddee sax damay ragal ñu mere ma. Fermin Pau Torre peut-être milieu bi ñetti ñooñu ngay seetlu ni di nga mën am benn nu mu tuddati benn changement boo xam ne dina mën a am entre ñetti joueurs yooyu noonu ñu tudd Lamine Yamal Pau Victor. léegi effectif bi ni nga koy jàppee ba yegg ci nga xam ne moom mooy Ter Stegen li ngay njëkk a mooy que ni Barça profondeur ba amu ko parce que effective bi nii lu ñuy gën di avancé match yi di gën di métti ngay gën a soxla fraîcheur dans les jambes te am na match yoo xam ne yu mel ni ko peut-être di nga bëgg a ko mais du bi ngay teg des fois parce que di nga soxla tourner équipe bi pour mën a waajal beneen match boo xam ne dina ñëw. exemple Barça bii di ñëw peut-être mu ngi war a am Séville bu jógee Séville war a dem Bayern après Bayern bu dal ci ba dal ci Real de Madrid loolu da gis ni match yu métti la yoo xam ne tey jii dina soxla par moment nga mën a tourner sa effectif pour noppal ñenn ñi pour mën a waajal beneen match boo xam ne mu ngi ñëw te aussi bu fekkee jeunesse bii nga yor il va falloir que à un moment nga def benn sacrifice ci benn compétition peut-être nga def a compétir Ligue des champions mais ça sera que.

paré na pour ndok xalé yi d'ailleurs bo ci wax sax da ngay sétlu ni ko am confiance ci ñom la bien vrai que chaque jour mu tuddu danaka 17 ans yi nga xamni mom lañ am c'est pour vous dire que ni dafa nek coach bo xamni fim gëm ni moy tay ni effectif bi fi nek ni ni paré na pour yobbu ko paré na pour yegg ak mom fep fo xamni tay jilé club bu mag paré na pour dem fa sama gaay da ngeen may wax nak ngeen gisee tay jilé peut être profondeur u banc bi nga xamni mom moy Barça bi parce que man personnellement japp na ni doyul peut être Barça bu nekul won tay jilé problème de fair play financier yi nga xamni mo dal sen ndodd jàpp naa ne kii di Federico Chiesa du leen rëcc ak yeneen joueurs yoo xam ne peut-être peut-être sax kaawu Bajcetic bi nga xam ne dem na resament fële na la ca Red Bull Salzbourg bi nga xam ne moo nekk fële ca Autriche léegi da ngeen may jox seen avis pendant ce temps man ma nekkaat ci yeneen i mbir ngir ñëwaat joxaat leen lu gën a wóor te gën a leer te gën a baax peace sament out